wala tamuutunna illa wa antum muslimun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba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 wa sharra al umuuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha al ixwatu wal axawaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di sant suñu boroom tabaraka wa taala ci lim nu defal tawfiq nu mën a daje ci jotaay boo xam ne def lu munu digal moo tax jotaay bee jóg te mooy di fàttalente di laayante biir di soññante ni ko mbokk mi waxee bunt bi ñu war jëmale fàttali bi tey mooy mashaahidu yawmil qiyaama tolluwaay yawmal qiyaam walla jaar-jaari yawmal qiyaam mu doon bunt boo xam ne bu jar di nafar la bu jar di jàng la bu jar di fàttalante la ndax gëm bis boobu ak la nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala wax lépp ne moo cay xew loolu mënees naa wax ne mooy ngëm yàlla gannaaw boo gëmee yàlla suñu borom tabaraka wa taala la ca topp rek mooy gëm bis boobu moo tax ngay gis lu bari ñu koy lënkale ak gëm yàlla man kaana yuminu billahi wal yawmil axir in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir bari na lool ci alquran bari na lool ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñuy lënkale gëm yàlla ak gëm bis bu mujj boobu doonte gëm boroom xam-xam yi ci wàllu jàngale danañ ko séddale juróom-benni xaaj gëm yàlla gëm malaayika yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm bis bu mujj boobu gëm ab dogal waaye ku gëm yàlla gëm bis bu mujj boobu rek daanaka day mel na gëm nga yooyu ci des yépp ndax yooyu ci diggante bi yépp yàlla mi nga gëm ak bis bi nga nar a teew ci kanamam yooyu ci diggante bi day yombal Euh, teewaay booba nga nar a teew ci kanamu suñu borom tabaraka wa ndax bu dee yonent yi ñoo lay jottali la nga war a def ak la nga war a ba ba bis boo teewee ca jotaay boobee fekk nga mel na nga xam ne noonu la borom bi tabaraka la bëggoon ci bu dee téere yi li la yonent yi di jàngal ci téere yooyu la jaar bu dee malaayika yi ñoom ñooy ñi nga xam ne Euh, ñooy wàcce wax yu gi ñenn ñi di bind say jëf ñeneen ñi di def taxawaay yeleen suñu borom tabaraka wa taala sant tem jëm ci yow kon bunt boobu war nañ koy jàng bu baax xaaj la bu rëy ci ngëm yàlla boo xam ne ngëm yàlla nit ki du mën a wér te fekk ne amul yaqiin ci bis boobu moo tax sax suñ borom buy tudd yowmal xiyaam moom du wax sax yuminuun waaye yuuqinuun la ñu wax yaqiin lay wax wa bil axirati hum yuuqinuun tax ba mu ne allazina yuminuuna bil xaybi yuminuun la tàmbalee wa yuqimuuna alsalaa wa mimma rasaqnaahum yunfiquun wallazina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablik waaye bi mu egsee ci àllaaxira nag daf ko jagleel ne wa bil hum yuuqinuun yaqiin moom ca gannaaw imaan la nekk ndax nit ki mën naa gëm loo xam ne ngëm nga eggul ci yaqin ndax ngëm ay degere la ngëm-ngëm mën naa yem ci njort li ko borom bi waxe ñi wax ne in nadunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin nun kat dañ koo jortoon rek waaye eggunu woon ci yaqin te borom bi tabaraka wa taala ci alaxira yaqin la ci bëgg waroo ci am looy sikki sàkka wa bil axirati hum yuqinuun ulaika ala min rabbihim alaxira googu dund bi nga xam ne moom la doom aadama di dund xam nañu ne dund ba lépp daanaka foofa la moo tax borom bi ne wa inal axirata la hiya alxayawaan law kaanoo yaalamuun nee dund dëgg dëgg dëgg muy dundub àllaaxira bu ñu xamoon moom la borom bi tuddee daarul xaraar wa inal axirata hiya daarul xaraar muy kërug saxuwaay ga dund doomu aadama bi yépp buñ boolee li muy dund ci àdduna ak li muy dund ci àllaaxira buñ xooloon li muy dund ci àdduna pour santaas ba lu néew lay doon ay sero ngay def sero yu bari sax dog caa teg la nga cay teg ci la dundub adduna bi tollook dundub àllaaxira ba bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk baag juróom-ñeent ak yu tofal lu bari lépp àllaaxira la lu matul benn loola moo cay dundub àdduna bi moo tax kon ñu war di ko yittewoo di ko jéem a xam ku ko ëmpale mbiri yow mal xiyaam suñ borom nee na xamoo dara ak loo mën a xam ndax am na nit ñu melal ne laa yaalamuun xamuñu del si ne yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia waaye wahum an il axirati hum gaafiluun mu ne ñi fiy jàng xam-xamu adduna bii rek yemale ko ci àdduna rek suñ borom nee na ñooñu amuñu xam-xam laa yaalamuun nga ne ah pour pourtant xam nañ ne mu ne waaw yaalamuun xam nañ kay lu ñu xam zahiran min alxayaati dunia li feeñ ci dundub àdduna bii lañ xam àdduna bi sax xamuñu lépp yu bare ngi leen fi ump waaye yi ci feeñ rek ñu mën cee teg bët wala ñu mën koo làmb daj ko wala mu man leen a xeeñ seen yëgukaay yooyu ñu am yooyu rek ci la ñuy mën a yëgee li xew ci àdduna waaye bare na yu ne ci adduna yoo xam ne sax xamuñu ko moo tax mu ne zahiran min alxayaati dunia waaye wahum anil axirati nag hum gaafiluun nee na dañ caa sàggan xamuñ ca dara moo tax kon amuñu xam-xam ndax kuñ ne sab dund juróom-ñeent fukk baak juróom-ñeent yépp da nga ko ëppule la nga xam ca benn ba nekk la nga xam ak kus néew kon mën nañoo wax ne sa dund boobu yépp xamoo ci dara kon bunt yi nag néew na lool lu ñu koy waxtaanee te la ko waral bokk na ca ñu bari ragal gu ñuy ragal lépp lu aju ci dee ak di waxtaane lu ca jëm jàpp nañ ne soo ko waxee dangay ngay gàngaal nit ñi ak dee ñuy wax nett li ko wala yàlla tere te yàlla alaxira moom yàlla nettali na ko ñëpp ku nekk am nga ci sa kon nag wari su koo daw ndax kenn mënu koo raw aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin musayyada suñu boroom ne na fu ngeen mën a nekk dee dana leen fa fekk qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngeen di daw day dajeeg yéen moo tax kon war nañ koy waajal lañ koy waajale nag mooy bañ a woru ci dundub àdduna bi nekk fi rek mel ne fii rek nga jëm si woon sa programme yépp fii la yem loola fiy may noflaay rek loola fi may bànneex rek mel na looloo taxoon yàlla bind la loolu ku ko def sàggat nga moo tax borom ne yaa ayuha alladina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dicrillah wa man yafal dalik fa ulaika hum alxaasirun mu ne yéen gëm yàlla bu mu leen fàbbi bu mu yóbbu seenum xel seen alal yi ak seen njaboot yi am na ñoo xam ne seen dund yëpp génnul ñaar yooyu kër ga liggéeyukaay ba bu dee kër ga njaboot ga doom yaag soxna yaag njaboot ga bu dee liggéeyukaay ba alal jam fay am ñaari camp yooyu rek ñoo koy paasante ba mu xëy rek faatu ba tax mu ne laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah yu bari seen programme génnul ñaar yooyu alal ak doom kër ak liggéeyukaay rek borom bi ne ko def loolu day yamale sa mbir ci ñaar yooyu képp nee na ñoo ñu ñoo perte fa ulaayka hum alxaasiruun mu ne wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum almawt fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min alsalihin walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamaluun suñ boroom ne alal ji dëgg la na ngeen ko fàggu di ca faj seen soxla yëmante ñàkk waaye nag na ngeen ciy dundule na ngeen ciy dépenser di ci sàkku tuyaaba di ci sàkku alaxira alal ji bu ko fajee soxlay àdduna rek faj ci soxlay alaxira te mooy nga dépenser ci wa anfiqu mimma razaqnakum nee nena balaa dee ñëw am kuy wax ne man de bu ma dundaatoon danaa def nangam danaa sarxe danaa bokk ci ñu baax ni fa asaddaq wa akum min asalihin suñ boroom ne dee nag su xasee ñëw moom kenn duutu yeexe boroom ndax ab diggam dafa jot walan yuaxir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirum bima taamaluun borom bi dal wax ne araditum bilxayaati dunia min al axira waaw ndax yéen adduna da a gënal alaxira fa ma mataau alxayaati dunya fi l illa xalil mu ne mona day mbooleem adduna ak li ci biiram ak li ngeen fi bëgg yépp ak li ngeen fi naw yépp buñ ko denn la nekk fa alaxira day lu néew a néew a néew a néew a néew la ci xadis boo xam ne Tirmisi moo ko nettali daana wax ne aksiru zikra haasimi lazat al mawt leen bari li ngeen di fàttaliku liy dagg bànneex yi te nee na mooy dee Abdullah ibni Omar radiallahu anhuma nee na yonente bi wax na ne maa xaqa limri'in muslimin lahu shay'un yuusi fiihi yabiitu laylatayni illa wa wasiyatuhu indahu maktuba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne jaaduwul ci benn jullit boo xam ne am na lu mu bëgg a dénkaane loo xam ne bëggoon na su faatoo ñu def ko nee na muy fanaan ñaari guddi lu dul ne ab dénkaaneem bind na ko ba yore ko ci riwaayatu muslim mu ne yebiitu salaasa layaal abdullah ibnu omar radiallahu anhu ne ba ma déggee waxu yonente bi salallahu alayhi wa jooju mu wax amatul benn guddi buy jàll lu dul ne maa ngi sama dénkaane bind naa ko ba teg saa bu amee lu jar soppi ma soppewaat ko ci waaye bind bi daal bind naa ko moom ba euh, du ma bett loolu kon ci waajal dee la bokk waaye rek mel na yow jóge goo fi ndax xëy na jàpp nga ne yaa ngi ci sa kàttan wala yaa ngi ci sa ndaw yaa ngi ci sa wér-gi-yaram te yooyu yëpp dàqontewul ak dee dee moom su waxtoom jotee rek suñu boroom tabaraka wa taala sabab yi mu koy jaarale yu baree bare bari la Abdullah ibni Omar radiallahu anhuma nee na yonente bi alayhi salaatu am na bis mu jàpp ci sama mbagg ne ma kun fi dunya ka annaka garib aw aabiru sabil nee na ne ma melal ne ci àdduna doxandeem nga fi dëkkoo ngi dëkkoo fi lañ koo xam ne barab dafaa ñëw rek di fa wut lu mu am pour yóbbu ko kooka dépense yu bari du ko fa bëgg a dépenser ñaare du fa wut sax kër wala bu fa dee wut kër kër gu yemaay lay doon ay dépense am lu mu gën a néew rek moo koy gënal ngir ab yóbbalam gën a sakkan ab yóbbalam gën a sakkan xam ngeen ne ñi tukki ku ci bëgg am yóbbal bu am solo booy ñibbisi loo mën a wàññi say fere say dépense fa nga nekk da koy def àdduna bii nag tukki la rek dañ fee jaar moo tax mu ne ko kun fi dunya ka annaka garib aw abiru sabil melal ci àdduna ne ab doxandéem nga fi rek wala koo xam ne dafay jaar jàll dafay transit rek dafay transit rek jàll waaye fii taxu taxu koo jóg wa udda nafsaka min ashaabil xubur mu ne ko jàppeel sa bopp ne yaa ngi bokk ci ñi ne ci bàmmeel yi doonte yaa ngi ci àdduna konteel sa bopp ne ci boroom ci bàmmeel yi laa bokk ndax waxtu woo toog di wax rek mën na waxtu woo bu dellusee ca beneen bis ba fekk la ci biir bàmmeel toujours nga di ko gis koo xam ne waxtu wi ngeen toogoon di wax ku ne ko woon waxtu woo bu dellusee ca suba sa ci biir bàmmeel la lay fekk xalaatu ko woon te noonu mu walaa ci kooku nag la walaa ci ñépp itam ibnu omar radiallahu anhuma daane wax ne ida amsayta fala tantasiri sabaax wa ida asbaxta fala tantasiri almasa boo gontee ngoon jot nee na bul xaar suba bul jàpp ne da fekke suba waaye boo xëyee itam bul jàpp ne da ngay fekke ngoon wa xus min sixatika li maradik wa min xayaatika li mawtik na nga jël ci sag wér waajale ko bis boo feebaree maanaam boo wéree da ngay góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla ci liggéey ngir xam ne feebar a ngi ñëw bu boobaa la nga mënoon dootoo ko man waaye fekk na defoon nga sa kem kàttan ci ba nga wéree loo xam ne soo feebaree itam loola dana ko mën a wuutu na nga jël ci sab dund itam waajale ko sag dee ndax su dee gi ñëwee kat jëf wala fàggu dara moom dootoo ko mënati kon nag nga profité ci dund bi def sa kem kattan ba bis bu dee ñëwee dee boobu nekk noflaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ñaar day doomu aadama daf koy naqarlo sopp ko mu ne yakrahu l mawt wal mawt xayrun lil mumini min fitna nee dañuy bañ dee di ko sib te nee dee day moo gën ci ku gëm yàlla fitna muy dund fitna te muy dem ba di dund loo xam ne day tàbbi ci lu ko suñu borom tabaraka wa taala tere mënatu ca mucc wala dem ba lañu ko digal mënatu koo def dafin wa ca war loolu kon boobaam mi ngi ci fitna loolu de moo ko gën ci moom mu ne wa yakrahu qillatal maal wa qillatul maal aqallul xisaab nee doomu aadama yi dañoo bañ alal ju néew te nee na alal ju néew day moo gën a jàpp ndal ca regle ba buñ day régler ëllëg nee na alal ju néew ja moo gën a yomb ab regle moo tax ku gëm yàlla moom du dajale alal du dajale alal waaye daf koy dépenser ci yoonu yàlla bu ca génnee ya nga xam ne mënula ñàkk wala tansa nasibaka min ad-dunya du ko fa dajale ndax alal taxu koo jóg da koy dépenser fi sabilillah dee nag kon war nañ koy fàttaliku di ko waajal di ko waajal ci tuub gu sell ak di delloo ay tooñaange bu fekkee tooñoon nañ ay nit ci ay àq yu ñu leen mën a delloo ñu delloo leen ko boo yoree bor nga di ko fay sa kem kàttan di néewal say bor te yi nga ci yorit nga di programme di ko fay waaye loo weesu rek weesu nga ko doo ci dellusiwaat loolu bokkul ci waajal dee waajal sa bilan ba mu leer defaral ko sa bopp ndax yaa gën a xam nit ñi say mbir boo fi jógee moom nit ñi dañuy làmbatu rek waaye yow yaa xam sa mbir ni mu demee dëgg dëgg dëgg ñi nga ameel ñi nga xam ne tooñ nga leen ci ay àq yoo xam ne sax ñoom xamuñu ko loole lépp bu dee lu ñuy delloo nga delloo ko bu dee lu ñuy jégglu nga jégglu ko jublu nag ci topp yàlla suñ boroom tabaraka wa taala ngi wax ne nit ñi de dañuy sàggan atta ida jaa ahadahumul mawt ba dee dikkal kenn ci yéen qaal rabbi irjiun laalli amalu saalihan fi ma tarakt muy ñaan nag naan yàlla delloo ma wala bàyyi ma fi ndax ma jëf-jëf ñu baax suñ boroom kalla déedéet innaha kalimatun huwa qailuha loolu day kaddu gum wax la rek waaye du kaddu guy jariñ delloo ma moom wala yeexe ma du tax ñu yeexe la wa min waraihim barzaxun ila yawmi yubas yubaasuun fa isa nufiqa fi suur fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun suñ boroom di wax ni afara ayta in mattanaahum sinin summa jaahum ma kaanu yuadun ma agna anhum ma kaanu yumattaun mu ne xanaa gisoo ne nit ñi su ma leen fi bànnee xale ci àdduna ay at bañ mel ne àdduna rek lañ jëm si woon jàpp ne seen mbir baax na nee na nag lañ leen doon dikk ëllëg ñëw nee na loolee ñu doon bànneexu ci àdduna du leen jariñ dara day mel na sax mësuñu fi woon a nekk moomu nag moom am na waajtaay boo ko waajalut it moom bu ñëwee am na waajtaay wu muy àndal moom la ñu tuddee sakaraatul mawt muy sukuraat suñ boroom tabaraka wa taala melal na sakaraatul mawt boobu ci ñeenti aaya benn aaya bi ci suratu qaaf borom bi wax ne wa jaat sakratul mawti bil xaq zalika ma kunta minhu taxid mu ne su sukuraatus ndee dikkee te nee na loolu mooy li ngeen doon daw nee na bu dikkee day dara mënu koo delloo mu dellu wax ci suratul an'am walaw tara id zaalimuuna fi xamarati l mawt nee na bu fekkoonte ne danga mën a gis ñi tooñ seen bopp di weddi yàlla wala ñuy bokkaaleeg yàlla di mooy yàlla nee na bu fekkoonte ne boo leen tiimee ñuy bëgg a faatu da nga xam situation bi ñu nekk kon day da xam ne lu yéeme la wal malaikatu baasitoo aydihim axrijoo anfusakum nee na malaaka yaa nga tàllal seen loxo naan roogi na génn tey jii lañ leen di fay la ngeen doon jëf beneen aaya suratul waaqa mu ne falawla ida balagati alxulqum wa antum xiina idin tansuruun mu ne nee na su roogi demee ba egg ca bëli muy bëgg a faatu nee na day loole bu boobaa ngeen di ko xool ñépp di ko xool kenn mënu ca dara nee na loolee kéemtaan la goo xam ne doomu aadama war na cee waaru ci suuratul qiyaama mu ne kalla ida balagati taraaqi wa qiila man raaq wa danna annahu alfiraaq wal waltaffati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin ilmasaq mu ne su demee ba roogi toll ci xar-xarle di dem ak dellusi dellu toll ca boliga nee na ñu naan ku koy faj wa qiila man raaq kan moo ko mën a faj nee na moom mu am lu ko wóor ne tey jii lay tàqalikoo nit ñi wa danna annahu lfiraaq tànk boo yëkkati mu fekki morom ma wal taffati saaqu bi saaq nee na keroog ila rabbika rek ila rabbika yawma isinil masaq amul feneen fooy jëm fudul ci sa borom tabaraka wa taala foofa lañ lay jëmale dañ lay jiital yóbbu la foofu ila rabbika yawma idin al masaq Aïcha radiallahu anha nettali na xadis boo xam ne Buxaari génn na ko mu ne yonente bi alayhi kaana bayna yadayhi olbatun fiha ma fa jacala yudxilu yadayhi fi lmaai fa yamsaxu bihima wajha wa yaqulu la ilaha illa allah inna lilmawti la sakarat inna lilmawti la sakarat Aïcha radiallahu anha bi muy nettali yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu tolloo ci waajtaayu génn àdduna nee na ñi ngi ko tegal ci wetam lu mel ne ndab loo xam ne ndox a ci ne nee na mu ciy dugal loxoom di masaa ci kanamam di wax ne la ilaha illa allah inna lil mawti la sakaraat mu naan dee am na sukuraat dee am na sukuraat mu metti lool summa nasaba yadayhi fa jaala yaqul ila rafiqi al ala ila rafiqi al ala atta qubit nee na mu daal yëkkati ay loxoom nee mu dégg ko mu naan ila rafiqil aala ba gis loxo yi di wàcc mu daal di xam ne ruu gi génn na ba tey buxaari yu génne na ne yonente bi alayhi wasalaam ba mu demee ba tiis wi diis lool Fatima doomam naan waa Karba abata ay sama tiisu baay wi maanaam di ñeewante baayam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko laa karba ala abika baad al yawm sa baay tey lay yëg mujjee yëg aw tiis bu rogi dogee rek dutu yëg aw tiisati waaye nag waajtaayu dee moom loolu moom dee ci boppam moom moo mel noonu ak mbaax wala daraja bu kawe du tee jaar ci melokaan woowu nga xam ne mooy dee Buxaari yi nett dina jële ci Omar ibnul Xataab radiallahu anhu mu doon wax ne wallahi law anna li tilaa al ardi zahaban laftadaytu bihi min azabillahi azza wa jal qabla an ara Omar ne man de bu ma amoon adduna bi ba mu fees dell ak or fees dell ak wurus danaa ko jotoo ci mbugalum yàlla lu jiitu ma koy gis bala ma dajeeg mbugal ma li ma ab lépp danaa ko joxe ba du ma dajeeg moom Euh, mashaahidu yowmil qiyaama nag mooy tolluwaay yi nga xam ne nit ki dana ci jaar gannaaw bu faatoo faatu moom muy dee mooy li nga xam ne foofu la mbirum allaaxira di tàmbalee ci jàmm bi romb waay yi muy romb nag ba ba muy dem ca këram gu mujj fa muy mujje mel muy këru xéewal bu fekkente ne mi ngi woon ci li borom bi tabaraka wa taala digle yonent yi alayhimu salaatu wasalaam jottali ko mu tënku woon ca loola ba dajeeg borom bi kooku day bu boobaa këru xéewal lay doon lay doon inna al abraara la fi naim wa inna al fujjaara la fi jahim fariqun fi l janna wa fariqun fi sair su borom ne ñu baax ñi day ñu ngi ci xéewal waaye ñu kàccoor ñi ñu dëngu ñi ñu ngi ci mbugal rombuwaay yooyu nag wala tolluwaay yooyu ba ca jiitu mooy bàmmeel xam ngeen nit ki moom bu faatoo moom nit ñi fi ñuy daal di tàggoog moom rek mooy ci suul ko bàmmeel kon mooy première étape ci état bi àllaaxira yi moo tax Tirmisi nettali na nee na Usmaan ibnu Affan radiallahu anhu isa waqafa ala qabrin baka Usmaan saa yu ma saa tiim bàmmeel rek day jooy ba sikki mam tooy ñu ne ko waaw yow Usmaan taskurul janna wan naar wala tabki léeg-léeg nga waxtaan ba tudd aljanna te doo jooy léeg-léeg nga waxtaan ba tudd safara te doo jooy te foo tiime bàmmeel rek jooy mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul alxabru awalu manzilin min manazili al aqira fa in naja minhu saaxibuhu fa ma ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu ashaddu minhu mu ne dama dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne wàccuwaay bi jëkk étape bi jëkk ci étape bi alaxira tolluwaay bi ngay njëkk a toll mooy bàmmeel nee na su ca boroom muccee nee na lu ñëwati rek gën a jàppandi waaye nee na ku ca mucc nag lu ñëwati rek gën a tar mu ne dégg naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne maa raaytu manzaran qat illa wal qalbu wal qabru afzahu minhu nee dégg naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne gisuma benn melokaan lu dul ne bàmmeel moo ko gën a raglu nee na luy raglu rek mën a tiitale rek nee bàmmeel moo ko war a gën a mën a tiitale ñu jële ci albara ubnu asib yonente bi alayhi salaatu wasalaam di nettali nit ki ni muy nekke ci biir bàmmeelam mu ne suñu ko suulee yatihi malakaan nee ñaari malaaka dañ koy dikkal fa yujlisaanihi ñu dij ko fa yaqulaani lahu nee na ñu laaj ko ñetti laaj man rabbuk kan moo doon sa boroom ñetti laaj yooyu mooy al usulu salaasa téere boobu ñuy jàng al usulu salaasa ñetti tontu yooyu lay jàngale ñetti laaj yooyu nga xam ne kenn ku nekk war nga koo xam ndax danañ la ko laaj ëllëg mooy al usul al salaasa man rabbuk su ko defee mu ne rabbi allah fa yaqulaani lahu ma diinuk fa yaqulu diini l islaam fa yaqulaani lahu ma hada arrajul alladi bucisa fiikum fa yaqulu huwa rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam fa yaqulaani wa ma yudrik fa yaqul qara'tu kitab allahi fa amantu bih wa saddaqtu fa dalika qawluhu taala yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli thabit fi lxayaati dunia wa fi na suñ ko ne sa boroom mu ne yàlla mooy sama boroom ñu ne ko lu doon sa diine mooy laaju ñaareel bi lu doon sa diine ban diine nga nekkoon mu ne diine lislaam moo tax nit ki war na tënku ci lislaam ba ñu andi leneen lu muy tudde lislaam te du lislaam muy ay bidaa yoo xam ne amul woon ca lislaam ba suñu borom ne moom la gërëm muy lislaam lu ñëw ca gannaawam rek bokkatu ci wa raditu lakumul islaama diinan islaam boobee islaam booba xam nga taxaw na booba arkaan yépp mat na julli ñëw na koor ñëw na asaka ñëw na aj makka ñëw na ba arkaan yépp mat yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale lépp ba lislaam mat foofa la lislaam yem nag yokkootut wàññi kootul al jooju lañuy tudde tuddee al aadi zikri lañ koy tudde maanaam al la joo xam ne day tekki ne baat ba mu nekk baat ba xam nañ ko mu jiitu woon ba pare mu ngi mel ne tey fi mu ne boo ne woon al madina dëkk yépp a tudd madina waaye dañ ko caa miin ba sone al madina dong yem ci rek ñépp madinatul munawwara la seen xel di dem ndax yàgg guñ ko ko yàggam mii ne jëratul nga ci des sax moo ne al madina rek maa ngi jógee madina rek kenn du laaj ban madina nga jógee waaye al islam it mooy lislaam boobee nga xam ne moo ma ton ca jamono joojee booba lañuy laaj nga tontu ko ne diinil islam diinil islam bayam foofee yonente bi sallallahu alayhi wasallam yoroon mais su fekkee yu baree baree bari ñëw na fi gannaaw bi nga tuddee yooyee lislaam tontu ne loola ca laa nekkoon kat boobaa du wér su ko defee ñu ne ko kooku yàlla yabaloon ci yéen mooy kan gis nga kon moo tax itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne moom nga war a jël def ko bu fekkee keneen nga tegoon ci sa kanam da fa tudd keneen koo xam ne da ngay jàpp ne moom la yàlla yónni woon ci yow ndax nee nga woon kooka rek laay jële ci moom diine kooka lu mu nekk ca laa ne lu mu nekkul nekkuma ci moo tax ñoom duñ la tudd kenn dañ naan la rek ma rajul rajul rek lañ lay laaj allazi bu'isa fiikum waa jiñ yabaloon ci yéen mooy kan su fekkee nag yow wutoon nga beneen waay boo xam ne moom nga tegoon yow ne mooy sama lépp ci moom ci diine moom laa koy jële moom du juum lu mu wax loolay diine lu mu waxul du diine boobaa kooka ngay tudd fekkee nag ku ca nekkoon la nag mu tontu ne rasulullah moo tax ñett yooyu mat naa dëggal bu baax a baax a baax a baax su ko defee ñu ne ko waaw yow foo ko xame foo xame yii mu ne qara'tu kitab allah damaa jàng téereb yàlla bi gëm ko fa amantu bihi wa saddaqtu ma dëggal ko mu ne loolu kon moo dëppoog li borom bi ne yuthabitu llahu alladina amanu bil qawli thabit fi lxayati dunia wa jàng gam ko doon jàng ci àdduna di jàng alquran gëm na yàlla rek kay buur lislaam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon rek mooy lislaam fa mu ko yemale woon fa la yem gëm ne it yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki yàlla yónni ci moom la ñu war a jële gëm gi mu gëmoon loolu ci àdduna moo tax ba mu demee ci àllaaxira mu man koo man koo wax man koo saxal yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunia ca loola nekkoon moo tax nag kon boo ko bëggee mën a tontu ci alaxira fokk nga dund ko ci àdduna fi lxayaati dunia wa fi l axira yonente bi alayhi salatu wasalaam ne su tontoo loolu fa yunaadi munaadin min alsama an sadaqa abdi fafrisuuhu min aljanna wa albisuuhu min aljanna waftaxu lahu baaban ila aljanna fa yatihi min rawxiha wa tiibiha wa yufsahu lahu fiha maddu basari nee na su tontool ñetti tont yooyu ba mu jub rek nee na danga dégg wootekat buy woote ci asamaan ne sama jaam bi wax na dëgg lalal leen ko ci laltaayi aljana yi solal leen ko ci coli aljana yi ubbil leen ko bunt bu jëm aljana su ko defee péexum ajjana ma ak xet gu neex ga di ko dikkal di ko fekk foofu ci bàmmeelam nañ ko yaatalal bàmmeelam lu toll ne xoolaayu soriwaayu ab gisam maanaam soo xoolee ba sa fa bët yam bët lim mën a xool cib soriwaay nga xam ne lu ko soree sore sori ba fa mu mën a yem nga xam ne dara doxul ci diggante bi waaye duut ko ma a tee gis ndax foofu la mën a yem loolu lañ koy yaatalal ci bàmmeelam mu ne nag wa amal kaafir mais bu fekkee nag ku weddi woon yàlla la ko doon bokkaaleeg yàlla ndax bokkaaleeg yooyu yëpp baatub kufru moo ko ëmb moo ko ëmb borom koy wax laqad kafara allazina qaalu inna allaha salisu salaasa inna allazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin nee na buñ ne koo man rabbuk nee na day wax ha ha du am lu la tontu laa adri xaw fa yaquulu fa yaqulaani maa diinuk lu doon sa diine mu ne haa haa laa adri fa yaqulaani maa haada arrajul alladi buisa fikum waa ji ñu yónni woon ci yéen mooy kan mu ne haa haa laa adri nee na fa yunaadi munaadin min assama nee na daal di ab wootekat bu woote ci asamaaw ne an kadaba fafrisuuhu min annaar nee na kooku day waxul dëgg dëggalul li nga xam ne moom laa yónnee woon lalal leen ko ci laltaayi safara yi solal leen ko ci coli safara yi ubbil leen ko bunt bu jëm ci safara tàngoor wa ak ngelaw lu tàng la di ko dikkal fa yatihim min xarriha wa sumuumiha moo tax suñu borom tabaraka wa taala ne annaaru yuraduna alayha guduwan wa asiya nee na safara dañ leen cay séndal subak ngoon wa yowma taqumu saa adxilu ala firawna ashadd al azab nee su yowmal xiyaam taxawee nag firawna ak ña àndoon ak moom ak képp ku mel na moom rek firawna ñàkk a moom jamono téewul nga bokk ci moom te mooy rëy rëylu bañ topp ak njub loola ku ko def yàgg moom yéen a bokk aw yoon moo tax boroom bi ne def naa leen ay ñuy woote jëme safara wa jaalnaahum a'immatan yad'uuna ila naar ay njiit lañ yoo xam ne dañuy woote jëme safara ibnu abbas radiallahu anhuma mi ngi nettali ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas nay dox romb ñaari bàmmeel mu ne ñaar ñii de ñu ngi leen di mbugal te liñ leen di mbugale day nekkul lu rëy maanaam lu jafe woon a def lu jafe woon a def walla lu diis ci ñoom nekku ko woon mu ne kenn ki day daf daawul laablu da daawul suturlu fegu ci buy tuur ndox du fegu ba ay desit di ca des di des ci ay yéreem wala muy des ci aw yaramam maanaam bu tuuree ndox daal du set loolu it kon mat nay bàyyi xel bu baax ndax day xañe ak laab te nit ki bu laabut jaamu yàllaam du mën a wér mu ne kenn ki day daf daan dox di ràmbaaj mooy di yàq ay diggante di ko ju di ko tuddee nag defar foo fekk bu ràmbaaj defar la koy tuddee suñu boroom wax na ko ci melo yi naafiq yi la bokk wa ida qiila lahum la tufsidoo fi l ard qaalu innama nahnu muslixuun ala innahum hum al mufsiduun walakin la yashuruun nee na soo leen ne lii ngeen di def day day yàq dem ca kee ne ko lee dem ca kenn ko le moytul diw xamoo nangam lim lay waajal nangam nangam ba noppi damay defar rek damay bañ mu bett ko damay bañ mu bett ko rek moo tax ma wax ko lool dem ca kaca des itam wax ko moo ko moytul diw mu lay waajal xamoo ko ba noppi na damay defar rek dama lay laabiire rek borom bi ne ala innahum humul mufsidun ñoom ñooy yàqkat yi walakin la yasurun kon kooku rambaaj googu moo tax ñu di ko mbugal yooyu yëpp kon dafa nekk ay addil la yuy tegtale ci ne bàmmeel am na xéewal waaye am na yit mbugal loolu la ñuy tuddee alxayaatul barzaqiya dund boobu ñuy dund ci bàmmeel mooy alxayaat albarzaqiya dund barsaq wa min waraihim barsaqun ila yawmi yub'asun kon loolu mooy almashadul awwal mooy tolluwaay bu njëkk bi mooy bàmmeel mat naa waajal bu baax raglu na lool kenn ku ne yaa ngi koy gis gis na mu xate yam ci nit ki képp ñu dugal ko ci biir daldi suul daldi maasale mbiram jeex tàkk ci àdduna doomu aadama itam seen xam-xam jeex ci moom tàkk loolu jullit bu nekk bu sax xol wowul war nga cee waaru waaye da ngay gis léegi xol yi nit ñi ni mu woowee dangay gis ñu nekk ci bàmmeel yi di waxtaan di wuyu ay portable mel na dara xewut loolu li koy waral mooy xol bu wow fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin xol bu dëgër bu wow moom la boroom bi ne am na xol dana dëgër ba gën a dëgër doj kal xijaarati aw ashaddu qaswa aw ashaddu qaswa gën a dëgër doj ndax nee na doj sax ñoom wa inna min alxijaarati lama yatafajjaru minhu l anhaar wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu l maa wa inna minha lama yahbitu min xasiyati llah wa ma allahu bi gaafilin amma taamalu nee na doj yi li ñuy dëgër dëgër am na doj yoo xam ne léeg-léeg ñu ne toj ci toj te ragal yàlla rek leen tax a toj nee na am na doj yoo xam ne léeg-léeg ñu toj ndox di génn la ma yatafajjaru minhu al anhaar te nee ragal yàlla rek a tax nee na léeg doj fàq fa mu nekkoon daanu ci suuf min xasiyatillah te nee ragal yàlla rek a tax moo tax bi wax ko ne law anzalna hada al qurana ala jabal la raaytahu xaasian mutasaddian min xasiyatillah nee na alquran ji bu ma ko wàcce woon ci montagne yi danga gis muy toroxlu di fett di toj ndax ragal yàlla waaye am na ci xol yi doomu aadama yi ñoom ñoo xam ne xol yu woow la yoo xam ne dara du ko waar dara du ko fàttali almasadu thani muy tolluwaayu ñaareel bi nag muy nag lay jële nit ñi nag ci étape boobu ci bàmmeel mooy nag an nafxu fi suur bis bu ñu wolee nag bufta bi wa nufiqa fi suur fa saaiqa man fi lsamawati wa man fi l ard illa man shaa allah summa nufiqa fiihi oxra fa ida hum qiyaamun yanzuruun wa asraqat al ardu bi nuuri rabbiha wa wudia alkitab wa ji'a binnabiyin wa shuhada wa xudiya baynahum bilxaq wa hum la yuzlamuun wa wufiyat kullu nafsin ma amilat mu ne bu ñu walee bufta bi nee na mboolem ku nekkoon ci asamaan ak suuf dese woon ak dund da ngay faatu lu dul ñecca suñu borom tabaraka wa taala génne illa man sha allah suñu ko walaatee ñooñu deewoon ñëpp dekki nee na suuf si leer naññ ci leer suñu borom tabaraka wa taala nee na ñu daal di teg téere yi nag woowu di alkitaab andi yonent yi yonent yi ñu yónni woon ñoom ñooy témoin seen téere parce téere bi suñu ko tegee yonente bi ko biñ ko wàcce woon ci moom mooy taxaw wa suhada ñu indi seede yi malaaka yi doon seede nee na nag wa xudiya baynahum bil xaq ñu atte seen diggante wahum la yuslamun Aïcha radiallahu anha ci xadis boo xam ne muslim soloo na ko dafa dégg yonente bi alayhi salatu wasalaam muy wax ne yuxsaru nnaas yowma alqiyamati xufaatan uraatan xurla nee na nit ñi bu ñu dekkee yowmal xiyaam du ñu soli yére du ñu soli dàll bu dee góor ñi dañuy mel nañu meloon ba ñu dugagul néegub góor xurlan ay aat la doon aysa ne radiallahu anha ma ne ya rasulallah annisaau wa rijal jami'an yansuru ba'duhum ila ba'd ma ne ko waa góor ñeeg jigéen ñi ñëpp jaxasoo ñuy xoolante kenn soliti yére mu ne ma yaa Aïcha al amru ashaddu min an yansura ba'dahum ila ba'd mu ne ko mbir ma gën naa tar kenn di tala xool kenn de an yansura ba'duhum ila ba'd kenn du tala xool kenn moom la borom bi tabaraka wa taala di wax ci suratul qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu aljibaalu kal ahdi almanfuus nee na bis boobu ñu dekkee nit ñi tasaaroo mel na ay lëppaa lëpp muy gunóor yooyu naaw bu tawee mel na da leen a jëri defoo leen cib saako rek li leen nee na noonu la nit ñi mel fu nekk waay jëm fa loolu nag mooy andi alxasr nag ñu dajale leen wa yowma naxsuruhum jamian miqdaadumul aswad hadis boo xam ne muslim solo na ko mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul tadunu samsu yowma alqiyama min alxalq atta takuna ka miqdaari miil nee na jant bi dana jege bindeef yi nee na ba tolloog luy tolloog mille mille à peu mooy kilomètre rek xam ngeen ne jant bi comme jege kilomètre euh, dana metti lool fi mu ne li mu sore ay millions yi millions yi kilomètres la nu soree te gis nga teewul ni muy tànge fa yakunu naas qadra ala qadri amalihim fi l araq nee na nit ñi bu boobaa nañuy ñaqe ak nañuy yëge tàngoor wa mi ngi ci kem seeni jëf nee na am na ci koo xam ne ñaq wi day ñëw ba ci ay dojoram am koo xam ne ñaq wi day ñëw ba ci ay wóomam am koo xam ne ñaq wi day ñëw ba ci ay mbaggam am koo xam ne nag ñaq wi day ñëw ba weesu sax gimiñam mu lab ci biir yonente bi alayhi salatu wasalaam joxañ gimiñam wa asaara bi yadihi ila fii ne koo xam ne ñaq wi day ñëw ba ci gimiñam lim taxaw lépp dim ndox ñaq wi doonu ñaq te lépp ci moom lay jóge waaye mel na ku taxaw ci biir géej ñaq wi wër ko wet gu nekk loola nag bu boobaa kenn ku nekk say jëf ak sa ngëm fam toll noonu ngay yëge tàngaay boobu yonente bi alayhi salatu tudd juróom ñaar ñii suñu borom di keral bu boobaa nga xam ne ñoom duñ yëg tàngaay boobu mu tujja imaamun aadil juróom-ñaar yooyu ku mënta dajale yëppit fexe ba doo ci génn fexe ba bokk ci biir juróom-ñaar yooyu seet ba nga ca mën a doon nga doon ko njiit loo xam ne lu maandu la jiite pouvoir beeg yépp nekk ci sa loxo ba noppi nga maandu te xam ne pouvoir moom boo ko yoree dañ la koo dénk waaye moomoo ko yàgg ñëpp a ci am la ca nit ñi sañ rek nga ca sañ bu dëgg tegee ci sa kawit danga da nga ko war a teg ci sa kaw la borom bi ne koonu qawaamina bil qist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw il walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima loolu mooy maandu koo xam ne maandu rek lay doxal dëgg rek lay doxal doonte dëgg gi ci kawam la dal mu nangu ne ci kawam la dal bu dalee ci ay waajuram mu nangu ne ci juróom la dal waaye doon nguur goo xam ne ku la jege rek moom dara luy coono du ko ca fekk lu mu bëgg a am am doonte yeewewu ko in yakun ganiyan aw faqiran ku maandu itam ku ñàkk ak ku am lay yemale ku ñàkk ñàkkam ga du ko tee jot lam war a jot ci àqam ki am itam am amam bi du tax muy jot loo xam ne yeyoowu ko ngir na dafa am rek kon moom lu bëgg am ko day ger day joxe déedéet imaam bu mel noonu njiit lu mel noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne suñu boroom daf koy keral mu teg ca shaabun nasha'a fi ibadatillah ndaw loo xam ne dafa jóg rek dal di dëlmal jaamu yàlla moom la màggaale moom la doxewaale ak ndawam ak ndawam ci jaamu yàlla gi la ko dox tënku teel a am iltizaam teel a tënku ci alquran ak sunna nasha fi ibadatillah waxuñu mu dem ba ndaw ga jeex ba caaxaan yaag yam doon def bàyyil ko seen bopp mu doog naan bàyyi naa leen fekk yooyu yaa ko bàyyi ñetteel bu mu ne wa qal wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid koo xam ne xolam mi aju ci jàkk jàkkaa gënal këram day dem sawar sawar ci dem jàkka lool te du fa yàkkamtee jóge même bu fa nekkut itam xol ba ca la nekk te borom bi ne fa ida faraxta fansab waaye wa ila rabbika farxab saa yoo noppeetee ci julli demal na nga sonni wax ñu nga dëkk ca jàkka ja rek nag di xaar ab sarax wala ay ndimbal waaye demal sonni waaye nag boo nekkee fa ngay sonne sa xemmimteef bépp na nekk ci sa borom na nekk ci jàkka jooju moo mu ne isa xaraja minhu atta yaud su ci génnee ba ba muy delsi xol bi ci jàkka ji rek lay nekk wa rajulaani taxaaba fi llah ijtamaa alayhi wa tafaraqa alayhi ñeenteel boobu nee na mooy ñaar ñu soppante ci yàlla rek tax ñaar ñu soppante ci yàlla ndax bëgg na ci yàlla day tekki bëgg gi nga bëgg suñu borom tabaraka wa ak bëgg gi nga bëgg lislaam ndax ku bëgg dara rek ku ne ca loola da koy bëgg waaw ñi bëgg football fi mu ne ku ñu gis mu mën a football dañ koy bëgg donte xamuñu ko mais football bi man lañ ko bëggee waaw ñu bëgg làmb noonu ñu bëgg leneen noonu kon ki bëgg diine itam fu mu fekk nit ku am diine daf koy bëgg donte amul sax leneen lu leen boole waaye comme moom diine la bëgg rek ku ci ne mu bëgg la ndax day jàpp ne moom ngay dimbali day jàpp ne moom ngay dimbali loolu itam nit ñi war nañ ci góor góorgóorlu bañ di bëggante ci intérêt wallu intérêt dafa dem ba tasaaroo fi mu ne ñu bari dañ naan xaritoo nañoo mbokkoo nañoo yépp mais ay intérêt rek ka leen boole ak kenn ku nekk yëg sa bopp kenn ku nekk sa moroom di la defal la nga jàpp ne yeyoo nga ko mu war la ko defal bëgg ko ngir diine ji rek nga xam ne même bu la defalul dara dara dara waaye moom diine ji nga ko bëggee moom mi ngi ci mbëggeel googu continuer nekk fi loolu mooy bëgg goo xam ne mbëgg la goo xam ne ci yàlla rek la mu ne wa rajulun sakara allah taala xaaliyan fa faadat ayna waa joo xam ne tudd na yàlla wéet xalaat nee na ay bëtam jooy kooku borom bi dana ko boole ci ñi muy keral bu ëllëgee ndax loolu ak ragal yàlla la fàttali ko suñu borom tabaraka wa taala fi barab boo xam da ngaa wéet da wéet ndax nag bu dee ci biir mbooloo sax mën naa amit muy dëgg waaye ci mbooloo njistal da ca yomb waaye nag wéet xalaat sa digganteeg sa boroom xalaat sa bàmmeel xalaat taxawaay yi nga nar a taxaw sa digganteeg sa borom bu ëllëgee étape poste de contrôle yi nga nar romb yépp bala ngaa dugg aljanna parce que contrôle yi bari na de yépp nga nar cee romb te fenn fu ne yaa fay taxawal sa bopp loolu jar na jooy moo tax borom bi tag ne ida tutla alayhim ayatu rahmani xarroo sujjadan wa bukiya bi mu taggee yonent yeeg ñi leen gëm daf ne ñooñu foo leen jàngale alquran ñu jooy isa tutla alayhim ayatu rahman xarroo nee na dañuy rot sujjóot wa bukiya dañuy jooy waaye fa xalafa min baadim xalfun nag am nag ñu leen remplacé ñoo xam ne adaa salaat wattaba'u shahawaat sànq nañu julli julli sànq nañ ko ci duñ ko rafetal wala duñ ko def ci waxtu topp nag ay bànneex juróom-benneel bi mu ne rajulun da'athu imra'atun saatu xusnin wa jamaal fa qaala inni axaafu llah ku juróom-benneel mu ne koo xam ne jigéen ju am taar ju am daraja woo na ko ci boppam mu ragal yàlla naka noonu itam bu dee jigéen moom itam nit ku am daraja am alal am lépp moom itam bëgg koo woo ci mooy mu bañ boobaa day am même cër boobu ne ragal naa yàlla kooku daraja boobu dana tax suñu borom tabaraka wa taala keral ko ci keruk aras juróom-ñaareel ba mu ne rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha atta la taalama shimaaluhu ma tunfiqu yaminu nee na joo xam ne sarxenab sarax nëbb ko ba ndey joor ba xamul sax lu càmmoñ ba joxe loolu misaal la ci ne ke la gën a jege muy sa soxnaak sa doom ak sa way ju rek ñooñu sax duñu xam li nga joxe bu ñooñu dañ laa jege ba léeg-léeg koo dimbali ñoom ñu yëg ko sa soxna xam ki nga dimbali wala sa doom xam ko wala sa jur xam ko wala sab xarit xam ko ne ko joxal ma diw sax jotli googe ngay jotli na joxal ma diw googee mën na ko caa xame wala su mënta ñàkkeen mu bañ a xam boog la mu koy jottali sax lu mu am na looloo ko ko joxeloo rek mais xamul lu mu même bu xamee ne sax xëy na xaalis la sa xamul lu mu toll def nga ko ci enveloppe def ko noo xam ne du xam nu mu toll kon di joxe di ko nëbbu ndax loolu la borom wax in tubdu sadaqaat fa niim ma hiya waaye wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqara fa huwa la ko suñ boroom nee na sarax boo ko feeñalee baax na baax na ndax loolu sax moom moo gën ci ki ñuy sarax moom ñu jox ko ko ci mbooloo mi yëkkati jox ko ñépp gis ko ndax ñeneen mën a joxe moom moo ko gënal moom loolu it baax na léeg-léeg dana soññ ñu narul woon a joxe itam ñu gis na diw joxe na nangamkat baax na waaye nag nee na soo ko nëbbee jox ko ñi ko yeyoo nee na moo gën ci yow waaw wa in tuxfuuha wa tu'tuuha al fuqara fa huwa xayrun lakum kon juróom-ñaari daraja yooyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax nga xam ne ñooy mucc ci tàngooru mett woowee ëllëg kenn ku nekk boo ci mën boole yépp it war ngaa fexe ba am ci benn boo ci am rek danga ci bokk benn boo ci am rek da ci bokk kon loolu mooy mashadu ñaareel bi muy tolluwaayu ñaareel bi bu doomu aadama yi dekkee nag ba ñu dajale leen ba ñu taxaw nag di xaar atteb suñu borom tabaraka wa loolu mooy almashadu thalis ba mooy almawqif xam ngeen mawqif boobu taxawaay boobu sax lu fa siiw la ba tax sax turi bis boobu ba ca gën a siiw mooy yowmal qiyaam tur yu bari la amee baatu yowmal qiyaam bisub taxawaay ba bisub taxawaay bu moo gën a siiw ci turam yowmal qiyaam saar wàcc ci suuratul qiyaama donte ay saar yu bari wàcc nañ di andi turu alaxira suuratul xaaqa suuratul jaasiya suuratul xaasiya tur yooyu yëpp tur yowmal qiyaam la ñuy wax saar yooyu suuratul waaqia ida waqaatil waaqia saar yooyu yëpp tur yi yowmal qiyaam la ñuy yore kon lu baree noonu ay tur surtout ci alquranul karim loolu day tegtale ak dëggoom aku dikkam buxaari yoog muslim nettali nañ jële ci abi xurayra yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa toog benn bis daane ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama ne man day maay sangub nit ñi bu yowma alqiyaama daal ne waaw ndax xam ngeen càng googu fan laa ko jële ne bu suñu borom tabaraka wa taala dajalee ñu jëkk ña ñu mujj ña ci benn barab ba nga xam ne nee na dañoo dajaloo ba ku doon woote ci seen biir nee na ñépp lay dégg yusmiuhumu daa'i nañu dajaloo dañoo dajaloo ba sorewuñu ba soo wootee ñépp ay dégg ma yawma yasma'una sayhata bil haqq nee na ñépp dégg